أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ci turu président de la république président Macky Sall maa ngi nuyu di ziar Serigne Mountakha Bachir Mbacké xalif général kullu murid di nuyu njaboot ak Serigne Touba bi yépp di beral nuyu njaboot ak Serigne Bassirou maa ngi nuyu mbooleem njabootu cheikh Serigne Touba yi nekk fii ci jataay di nuyu kilifa yi yi ak kilifa yi aada yépp yi fi nekk sëriñ bi président daf ñu fi yónni ñu ànd fi ak délégation ñëw ci bés bii ñu ràññee ci délégation bi ministre Mame Thierno Dieng ministre Birima Mangara ministre conseiller Mor Ngom gouverneur de la région de Kaolack préfet département de Nioro sous-préfet Paoskoto ministre euh, conseiller spécial Cheikh Mbacké Sakho Madame Seynabou Ndiégué, présidente du conseil d'administration. Sëñ Djili Mbacké, chargé de mission. Modou Mbacké Bara Dolly, responsable politique. Lamine Bara Gaye, Fallou Fall, ambassadeur. Mamad Ba, directeur général Aprosi. Député Jéema Ndiaye Ba, député Gadiaga département de Nioro, maire département bi, responsable politique yi ñëpp ñëw gunge ñu ci turu président de la république sëriñ bi am nañu mbégte lool président yebal ñu fii ci sama sëriñ ci sama wayjur ci bés bi ñuy tuddee màggalu Porokhane sëriñ bi xanaa ba ñuy tàmbali rek dañ leen di ziar seen mbokk suñu mbokk suñu cheikh daaru rahman bi nga xam ne démb bi badaaxal bi tàbbee ci suñu nopp laata ñuy dem conseil des ministres yeggale nañ ko président ba mu def ci taxawaay bi ci war sëriñ bi président de la république nee na gis na taxawaay bi ak ñaan yi waxoon nga ko bi mu ñëwee ci yow di wutaat réew mi nga ne ko dama la ameel bor boole naa la ak Serigne Touba mu fayal ma la Serigne bi man ci sama jëm bopp waxoon naa ci màggal gi ne président Macky Sall lépp li muy def ci dëkku Touba lu ko war lool waaye ma fàttali woon nit booba ne Serigne Touba ku ko liggéeyee lu mu fay la na ma ko defale woon Blaise Diagne ba mu wut xëccoo député sëriñ bi waxtu wi daaw man la suñu borom wërsëgale woon ma ñëwoon fii ñu koy santaat bu baax bi mu amaatee ren ki ñu fii defal màggal gi muy sunu maam soxna jaara buso jaaratu laay ku màggal bésam da nga ci am ngëneelu yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak bu sëriñ ndax jaaratu jaamukat yàlla la waaye ku amit ngërëmu boroom këram la woon ngërëm bu baax boobu mooy suñu maam Mor Anta Sali suñu maam Mor Anta Sali nit ku baax la woon doonoon nit nit koo xam ne kii daawut peut ñu koy waxtaanee ci lu bari waaye ni ko naaru gànnaar ba Mouhamadou Abdoulaye waxe ci téeréem bi ñuy wax nafaatul miskiyatu mu ne cheikhan aliman sëriñ bu amoon xam-xam moom sëñ Momar Anta Sali waaye amilan bi ilmihi ku jëfe woon xam-xamam la bokk na ci wàllu yi nga xam ne wu daawuñu jaxasoo ak nit ñu bari dafa daan taxaw di naafila guddi di woori bëccëg boroom fatku la woon doonoon boroom xam-xam bu kowe ci yàlla ku amoon teraanga ak barke mi ngi jamono gane woon jamono 1820 génn àdduna 1882 liggéey bi suñu maam soxna jaara bu su doon liggéey ci wetu boroom këram sëriñ Mamoor Anta Sali moo tax mu am ngërëmal yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi waxoon na ne doomam Fatima jëf jigéen ji ci ji jëf ji ci jëfi jigéen mooy topp sa boroom kër maam jaara moo dàqoon a def lu rafet ak lu baax ci kër moo tax sëriñ Momar Anta Sali nee na maam jaara busu mii musuma mere musuma merlo maam jaara jaamukat yàlla la woon jigéen ju baax la woon ku daan joxe alalam ci jaami yàlla yi ku daan jëf lu baax la woon ni ko sëriñ Basiru waajuru sëriñ Muntaxa waxe woon ci téeréem ba ne maam jaara ku baax la ku sàmm la ku am diine la ku bari ay julli la ak i woor ak i sarax ku jébbal boroom boppam boroomam waaye ku toppoon sëriñam ba di sëñ Mamoor Anta Sali yàlla fayee ko Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu Mouhamadou Abdoulaye bi mu tuddoon léegi nee na bi nga xamee ne leeruk Sëriñ Tuubaa mi ngi ci soxna si te ganewu bu àddina ak lu ndox ñàkk-ñàkk musuta julli te jàppul at mi sëriñ bi ganee jamono bëccëg yi daf ko daan woo bi sëriñ bi ganee jamono musu koo nàmpal te jàppul lii mooy wane ne soxna si ku déggoon diine la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na tere nañu leen ngeen di lekk ci kaw ngeen yor janaba ndax loolu day tax ngeen ñàkk am xel ak wërsëg loolu mu ngi téere bi ñuy wax kitaabul makaarimul axlaaq Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu wax na ne yàlla jéggal na samay ñaari wajur jéggal na ma it man Cheikh Ahmad mu ne lam yax fa kawnullaahi li alay yaxfara lii suma li walidayya kama xafarta li sawital uqdiya noonu tamit la yàlla jéggalee mbooleem li aju ci moom lii rekk war naa tax bu sëriñ bi woote ñépp war a wuyu si rawatina bésub maam jaara bi nga xam ne ci moom la lépp doore sëriñ bi président sumb na fii ci dëkk bi liggéey yu am solo wàllu infrastructure bu ngeen fàttalikoo waxoon naa ko fi daaw bi tax ñu mën a jéggi xur wi liggéey bi ñu ngi ci àggale na fi salle de conférence yu war a nekk bibliothèque Porokhane ak musée Mamor Maam Jaara Bousso salle de réception bu téeméeri mètre carré ak juróom fukk war a tabaxaat école Serigne Moustapha Bassirou fii may wax ak yéen ñii élaboration plan directeur d'urbanisme ndax kenn ku ne xam ne dëkk bi laaj nañu defaraat ko plan de détail ak plan de lotissement am nañ jàpp ne fii ñetti weer mu pare liggéeyu esplanade bi junniy mètre carré également daanaka dem na ci xaaj ak résidence des hôtes bi fi président yéene sëriñ bi sa ñaan mus sa jóg ci président ñaanalaat ko gannaaw bi mu joteewaat ci réew mi juróomi at yi nga xam ne yii moom lay waaj a tàmbali le 2 avril yomb lool ci moom di njiglaay ci moom ak njabootam ak ci réew yépp maa ngi leen di sant maa ngi leen di maa ngi baalu ak ñëpp asalaamualeykum wa rahmatulahi taala barakaatu jërëjëf suñu Tuubaa rafetlu bu baax teewaayu ministre Khadim Diop bii toog ci suuf te nga xam ni danaa koy wax toujours ni ko sëñ Bachiru ëpp na waaye sëñ Manaar doy na moom itam Mbakke taxawaayam ci wetu nijaayam taxawaayam ci yoon wi ak taxawaayam ci président de la république rafetlu nañ ko bu baax a baax moom nag tubaar tubaarkàlla moo dalal gan ñi ñu déglu nag ni ma ko Cheikh Mamadou Bachir mu sëñ Moussa waxe woon dañuy déglu Cheikh Mamadou Bachir moom sëriñ Abdoul Khadir yor kàddug sëriñ bi waaye li tax mu yor kàddug sëriñ bi sëriñ Muntaxa doyloo ko jege na lool soxna jaar kii bëgg a jege na lool soxna jaar sëñ Abdou Khadre sëriñ Bousso bi soxna jaar sëñ bal mi jur yaayam sëriñ Bousso bi ak soxna jaar bokk ndey ak baay jege na lool jaar dafa am fu nu nekk rek te ñàkk ku baax muy sëñ Cheikh Dar Rahman waaye kon bala ma laa jox rajo bi danaa la wax yaay kan yaay jege jaar ku munta ku munta gàkkal alxuraan munta gàkkal sa del bi liggéeyal sëñ Bamba te bul bees kan gaa yi ku leen raw ñu dabee law la miin sa sa maama lay liggéeyloo raw nga bu déglu kenn sëñ Abdou Khadi ma ca penkum jumaa ja ku mun ta alxuraan mënu laa gàkkal sëñ bismillah asalaamaaleykum wa wax ne bokki jullit yi fi ak bokki taalibe ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa xalifatul aam li tariqatil muridiyya di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Issakha Mbacké mi toog di rakkam te teewal ko ci jataay bi di kilifa jataay bi nee kon sëriñ bi mu ngi nuyu ñëpp di dalal ñëpp ci jàmm di nuyu mboolem njabootu sëriñ Touba gi nga xam ne ñëpp a fi ñëw njabootu sëriñ Touba nag bu ñu ko waxee képp ku yaakaar sëriñ Touba ngi tàbbi biir waaye ñu di ci tànn ñenn ñi teew ci jataay bi bu ñu ci tuddee ñett rek mu mën a yóbbaale ñu ci des mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Abdoulaye Lahad moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ak Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mahmoudan Diobé ak Serigne Abdourahman moom Serigne Cheikh Gaïndé Fatma ak mboolem njaboot bi yépp sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam leen ne jotaay bii ñor na ko lool ndax moo fi sëriñ Touba moo fi Cheikh Mahamadou Bachir kon lu ñuy def fii moom lañ koy defal nee kon nag mi ngi nuyu ñëpp wala ñoo tàbbi ci wax ji nag ñu fàttaliku sunu kilifa gu baax gii nu ñàkk muy sëriñ Cheikh Mbacke Darou Rahman na ñu delluwaat rek ci li alquran santaane woon wala nabluwannakum bi shay'in min alxawf wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfus وثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون nee na xanaa ñu delluwaat ko foofu rek natt bi ci aaya boobu te xam ne kilifa la woon gu am solo ndax bi fi waajuram tedd wa di bàyyi ko di sëriñ Abdullahi borom dër bi ñu ngi ko fekk ci fukki at ñett mu doon xalifa ci fukki at ñett loolu bëriwut ci yoon wi ba tey mu dem ci juróom-ñaar fukki at ñaar te yàlla dimbali ko it ndax ku jote ak xilaafa foofu nga jàng ba xam li nga war a xam ci diine tër bi yow ba mel na nga war a mel loolu ndimbalul yàlla la kon moom jëmm la woon joo xam ne bokkoon na ci ñi Sëriñ Tuubaa di puugare ci ak njabootam ndax yàlla dimbali na ko ni mu feeñ ba niñ ko noppee gisee yàlla def na mas sa def lu naqari yàlla loolu nag yombut loolu tawfeex ju rëy la doonoon ab jàmbur di ko nangoo liggéey doon jëmm joo xam ne kenn mësu dégg ci mbiri àdduna doonoon jëmm joo xam ne itam intervention kenn mësu koo dégg dafa nekkoon ci liggéey ak jaamu yàlla ak doyloo la ko sëriñ Tuubaa defal kooku nag kon buñ ko ñàkkee dañuy jàpp ne yoon wépp ko ñàkk yàlla def na bi mu wéradee ba war a tukki moom mii moom Cheikh Bass moom la ko Sëriñ Mamadou Muntaxa booleel ne ñu topp tool ko lu ko mën a génne ba mu ko xamee ba nanga nii keroog la mas sa dégg yitteem te sëñ Cheikh Bass nee na jàppul ne kenn mas naa dégg yitte sëñ Cheikh Darou Rahmane nee na loolu nag sëriñ bi am ci yërmaanu ji ba mel na suñu borom da koo xamaloon lañ nar a xew ci moom neen yàlla na ko suñu borom doole ay leer te taas na ci barkat te dëgëral ak njabootam gi mu fi bàyyi ñu di di nuyu nag ki nga xam ne moom la fi président de la république yónni muy Aly Ngouille Ndiaye di ko yóbbante nuyu sëriñ bi ci président ci taxawaayam ak yitteem ak lépp loo xam ne yitteem tam xam ko lu mu ca man mu def ko mba ci mbirum sëriñ Cheikh moom moo ci mujj kon sëriñ bi nee na koy sant di ko gërëm di ko ndokkeel itam ci yaakaar ji réew mi amaat ci moom ba tànn ko tegaat mu di ko ñaanal sunu borom kàttanal ko ba mission boobu yi moo am ci ndam naa ma ko bëggee itteem lépp mooy Pastef ak nit ñi dellu ci Pastef kon nag li ci solo mooy képp ku digle walla ngay tere la Sëriñ Tuubaa waxoon ne war nga caa góorgóorlu ba ña ngay jiite seenum xel di dal ci la nga leen di digal moom sëriñ bi na la ko yàlla defal képp ku topp ci ginnaawam sama xel dal na ci moom ndax li muy digle moo cay jiitu ndax moom ku ne xam na ne bi fi ay kilifaam nekkee dafa mel ne ku amul amul bëgg-bëgg amul xalaat léppam mu jooy ko ci ay kilifaam danaan wax ne bu may jëm ci sama kilifa dama koy bàyyi ak sama jëmm bàyyi ak jëmmam mais loolu nag waxu ko rek yam ko da koo kon képp koo xam ne topp nga ci ginnaawam war ngay bàyyi xel loola bu baax ndax moom de li mu lebal ay kilifaam faaw yàlla fay ko te Sëriñ Tuubaa fay na ko nag ndax wa min saadati alfata xaysu xasad allah yurubdahu faadu si nashat am na kenn ci rakkam yi bokk ci ñu nekk jëwriñ ci kër yi Sëriñ Tuubaa wax na ko sax bas ko mbirum Sëriñ Muntaxaa dafa mel ne bi mu doonee Sëriñ Tuubaa dafa mel ne li ñuy wax bushra li ahli sama wal kullu yaxtaaru nee loolu la suñ borom defal suñ Muntaxa nee moo tax ñëpp maasi ci wóolu ko xol yëpp nangoo nee loolu nag taxawaayam ak jëfam moo ko ko may nee na bu yàggut da koy wax ne ko sëriñ bi de li ma seetlu ci yow lu ak sa ak alxuraan bi ak xasaay ak bëgg nit ñi am gis naa ne du sa itte nee na mu ne ko yaa ngi bëgg a xam kon sëriñ moom foofu la nekk kon nag yàlla ko suñu borom bàyyi ba naal yu rëy yi nga xam ne am na ko ci woon sëriñ Tuubaa yi te la ca jiitu di université bi muy tabax mu tàmbali ko woo ci taalibe sëriñ Tuubaa yi te ñëpp fekk si ko ci yàlla na ko ci suñu borom dimbale ba naaloo mu àggale ko ba mu sotti ba mu ubbi ko ba tàmbaliwaat yeneen mottali naa yi nga xam ne itam kilifaam ko bàyyi woon na ko fi muy Cheikh Seydi Mokhtar kon yàlla na ko suñu borom bàyyi nu yàgg topp si ginnaawam te yàlla dimbali nu itam ba nu fexe ba bañ a juyoo ak ay ndigalam ndax bu nu ko defee mboolem li nu bëgg mu dina ci dimbale ndax Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne nit ki ñu ngi ci kanam mi ngi ci digg bi mboolem li muy bëgg te di ko wut te di ko fexe te ko sàkk guddeeg bëccëg looloo ngi ci kanamam mboolem li muy bañ di ko ragal ñu ngi ci gannaawam mu ne waxtu wane ñokket jëm ca sa borom digal mboolem li ngay bëgg te di ko wut te di ko fexe te di ko sàkk guddeeg bëccëg bëccëg loola ne la mutuma geesoo bokkunu fun jëm waxtu woon ñokkee nag jëm ca sa borom tere wala lu muy bëgg te di ko wut te di ko fexe te di ko sàkku dégg ba loolu ne la matuma gay soo na fu mu boole mi ngay bañ na te di ko ragal te di ko wattandiku bu dégg bëccëg loolu ne la matuma gay noo bokk fu mu jëm loolu kon ñëpp ci war a bàyyiwaat xel dellu ci sunu ndax sëriñ bi kat jotaay yi mu toog fi di wax waxam yëpp génnul loolu Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne nit gaa ngi nii daal di bind ak miim ci kanamam bind ak nit ki saa su xëyee di sàkku addunaam ji di ko dàq te du ko jot mukk àllaaxira ci gannaawam di ko dàq te faaw dana ko jot daal xam nga nuy mujjee àdduna àdduna mes dem bàyyi la àllaaxira ne nuus jàpp nee na kon de nit ki bu bëggee lu koy amal njariñ àdduna ak àllaaxira na wattandiku te daw àddunaam ji ñu xam ne da koy dàq te du ko jot te dëgg dëgg ma nga xam ne da waxit ne adduna façon naaru góor la boo xam ne saa soo xëyee di ko yebal te doo ko war mu daana waxit ne loolu dafa mat a bàyyi xel ndax fii jamono toll la in lam yantahi al munafiqun والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلى خليلا ملعونين أينما سقفوا أغيثوا وقتلوا تقتيلا ñi nga xam ne waxtu wu nekk dañuy ñaaw njort mooy naafeq yi ñooñu nag suñu borom da leen a tëkku ñi nga xam ne itam seen xol yi jàngoro cee nekk ñooñu duñu wér mukk ndax waxtu wu nekk seytaane day jax-jaxee seen i xol di tàbbal ci ñoom ak ñaaw njort ak ñàkk gëm ak ñàkk doyloon suñu borom wala mu jifoon ci madinati nag mooy ñi nga xam ne waxtu wu nekk lu lañuy la ñuy bëgg a dégg ci nit ñi ñooñu nag suñu borom da leen tëkk du leen xaare ëllëg moo tax mu wax ne inna la seen yuhibbuna أن تشاع الفائزة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ma ne kon loolu lu mat a wattandiku la Sëriñ Tuubaa daan wax ne dee leen bari ay teggin ndax bu teggin jógee bu teggin jógee dee leen bari ay teggin ndax bu teggin jógee gudd fan ne ko doom fi bàyyi àjjana ko ma teeru leen dalal leen waaye ni dee leen mooy safaan ba ndax bu jógee gàttu fan ne ko doom fi bàyyi sawara ne ko ma teeru leen dalal leen kon dee leen mooy tooñ ndax kuy tooñ bu mujj waaye kuy fay yuddu ñoom waaye kon li am solo mooy dellu ci yàlla jël suñu te jël suñu lépp nag. suñu passé fa suñu lépp. jëbal ko Sëriñ Tuuba. ndax Sëriñ Abdul Ahad Mbàkke daan wax ne. boo amee koobu ndox. te bëgg naan. bëgg sangu. da ngay fekk ku yor géej. nga booleeg moom. kenn mënatu la caa génn. la nga soxla lépp da nga kon nañ jël suñu lépp. jébbal ko Sëriñ Tuubaa mu defaral ñu ko tey defaral ñu ko ëllëg te moom waxoon na ne Sëriñ Tuubaa waxoon na ne ku ma jébbal sa lépp ma jël sa lépp defaral la ko ku ma jox sa lenn téye sa lenn lan ma lan ma jébbal ma defaral la ko la ca des ma maandu jox kon nag dana war a jël suñu lépp jëbal ko sëñ Tuuba te xam ne dañoo jaayante ak moom adduna ak àllaaxira te li ñu jaayante moom ak njëg la nit nag bu jaayee dara te yaakaar jot njëg lam jaay moomatu ko kon xam ne moomatul suñ lenn moomatul suñ adduna moomatul suñ àllaaxira suñ lépp nan ko jëbal sëñ mu defaral ko adduna dafa ñu wàlla te xam ne kenn ku fàggul na la loo xam ne mën loo ko sa ndax bu su fekkee loo bëgg mu yomb la la wóotaleeg say nawle sa sëriñ Tuubaa rek koo génn ci yow itam dara dootu ci des te waxoon na ne li ma leen fàggul mooy ku dund am barke ku ci ku ci faatu tàbbi àjjana te dee la xisaab te loolu nag fàggulu ko jabaru boppam taalibe yëpp la ko fal ndax waxoon na ne dañu ko laajoon ne ko nee na daa wax ne sama demel mutakallim yi ma yi ngeen dégg ma di ko wax bu leen di jàpp ne sama jëmm ko moom képp ko aju ci rek te jub tàbbi ci biir loola kon nag yàlla na tàbbal ci adxaltu nafsi wa jamii ahli fii jaybi afdal wara sil fadli assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu nañu fasaale président ca biir li mu dimbali lislaam lépp ak réew mi mu yeggale ko dana ko yeggale di ndax fi mu jaar la